murtajan minnatun lana jariun muddin min sunu min seytaan bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy déglu te duñu seetaan dellusiwaat nañ fii ci seen site bi ñuy wax 24 actu ñu ci ànd ak yéen ayu gu jot ci seen émission bi nu tuddee Madinatu Ilmi tey ji nag ñu fas yéene ginnaaw bu ñu leen sante ci jataay yi nga xam ne paase na ak commentaire yi ak ñi nga xam ne yéen a ngi ni topp sunu jataay bi ñu leen di ñaanal jàmm ak xéwal di ñaan yàlla defal leen tawféex sutura tey nag noonu bëgg a dikk ci jataay bi waxtaane kenn ci njabootu Serigne Touba gi kenn koo xamante ni exemple la woon modèle la woon model nag mooy loo xamante ni buñ ko tàllalee ñëpp ñu maase xam ne lu baax la loo xamante ni bariwul bariwul loolu tey ñu bëgg waxtaane kenn <coughs> mu di sëriñ seex Mbacke Daaru Rahman nga <coughs> xam ne dafa wàcc liggéey ci ayubis gi ci jamono bi ñu nekk ñu di ko jaale umma islam bépp di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbacke yàlla yàggal ko fi lool te wéral sëriñ seex moomu nag mi ngi gane àdduna 1947 47 la gane àdduna bi muy toog ci xilaafa gi di wuutu waajuram mu doon 1960 yaakaar naa kon ku nekk xam na ne li mu li muy toog xilaafa ay atam bariwut woon fukki at ak ñett wala fukk ak ñeent du ko gën gën gaa bari loolu lay doon booba ba léegi ba mille 2019 bi kenn kenn kenn mënu koo joxoon baaraam ne la sëñ Seex wax ci loo xamante ni lu rafetu la wala la sëñ Seex def ci loo xam ne dañuy dar gémmañ wala mu wax loo xamante ni nit ñëpp dañ naa la mu wax bokk na ci ni nga xam ni la rafete juddu yàlla bindoon ko mu doonoon tamit ku xemmamu woon ku ku ku sopplu woon cib taar waaye ci jikkoy biiram tamit boo yëngalee biiram xam ne jikko ju rafet donc moo nekkoon ci moom sëñ Cheikh moom nag moo wàcc liggéey ñu bëgg waxtaan tuuti ci moom ngir nit ñu bari man cee dellu waroy yàlla bindoon na ko mu doonoon ku xamoon jamono waaye ku déggoon sëñ Tuubaa tamit xam ngeen ne ba mu toogee xilaafa fukki at ak ñett xam ngeen ne foofu ak ngone jaar na fi lool waaye kenn mësu koo dégg ci fi gone mu dox tuuti ak waxambaane jaar fi waaye kenn mësu koo dégg ci yëfi waxambaane mu dox tuuti àdduna bépp wuy si ko tege ci loxoom la toppoon sëñ Abdullahi lépp topp ci loxoom ñépp nekk ci moom di déglu baatam ndigalam kàddoom waaye kenn mësu cee dégg loo xamante nii loo rus a génne la wala loo rus a nettali sëñ Cheikh moom nag nekk exemple boo xamante ni ki ñu fi des ak ñu jiitu sax mën nañ ko ndax koo xamante ni màggal gi nga xam ne moom lay wooteel Cheikh Abdoulahi mosu koo yëgal gouverneur mosu koo yëgal président mosu koo yëgal sous préfet mosu koo yëgal sax benn chef de brigade ngir ñu jàppale ko mosta bind kenn ab leetar ngir di la wax màggal gi lu dul ñi mbokkal sëñ Touba nga xam ne bis la boo xamante ni ñoom gënu leen cee yee gënu leen cee say waaye te leen koy yëgal rek ngir xam ne ñoo ko bokk waaye du dara loo xamante ni daf ko tàllal loxo ngir bëgg ñu defal ko ko walla ñu jàppale ko bu dee alxuraan ji mooy saytul boppam ña koy jàng la ca war ci war leen koo jox moo leen koy joxal boppam bu dee ci loo xamante ni tamit yëgal le ko ndaw la muy sàkk la ca gën a yéeme mooy doomam lay doon mu ñëw yëgal la ko nit nag boo dem nawleem mu jël doomam di mu nawleem mu ñëw yebal la ko kooko daf laa bëgg a wax fi nga toll ci moom sëñ Cheikh moomu nag bi mu toogee ba léegi ku nekk xam na ne royukaay la woon sëñ Abdoulaye mi mas naa woo Abdou Diouf fi ñëw mu woolu sëñ Cheikh bi mu ko nuyee léegi ñëpp ñëpp nuyu ko ku nekk Abdou Diouf jaar ci sa mu ne ko Abdou kii may nuyu lay nuyu lool xam nga ko mu ne ko déedéet mu ne ko foogoon naa ne doo xam ne ndax kii du la diis soxla du ñëw ci yow doomi sëñ Abdoulahi Mbàkke sama mag ju baax jal ku jàpp njàmburam la ku téye boppam la ku nangoo liggéey la ku nangoo jaamu yàlla la sëñ Seex moomu moo fi jóge waaye doonoon koo xamante ni exemple la modèle la boo xamante ni réew mi ko xam ñi ko xamoon ba léegi dañuy émancé jëmmam ci civilisation bi nga xam ne amoon na ko ci sàmm ki nga xam ne amoon na ko nit mën naa sàmm boppam loolu ku nekk warugar la ci yow bu ne àdduna bi dafa yàqu ba ku nekk ne dafa yàqu yàqu googu tekkiwul na yow da ngaa war a yàqu ndax loo sàmm sàmmadi ak lu mu yàq yàqu sàmm sa bopp moom waru gar la ci yow fexe ba baax yow waru gar la ci yow fexe ba baaxal ñeneen nag loolu moo jafe sëñ Cheikh dafa sàmm sàmm sàmm dafa sàmm sàmm sàmm maanaam su ma waxee ne dafa sàmm mooy sàmm na boppam sàmm na li fi sëñ Abdoulahi bàyyi woon yaakaar naa bu sëñ Abdoulaye dellu siwaat jamono ci li mu nekkoon ne ko li ma fi bàyyi woon béréb sàngam wala la ma fa tegoon wala la ma defoon anamu sëñ Cheikh du ruus a dugg ci biir génne ko jox ko ko du ko ruus ne ko fi nga tegoon wala fi ko bàyyi woon wala na meloon mu ngi nii jamono mosu koo njatt mukk ba ndoonay sëñ Abdoulaye yooyu mu yoroon wala bagage sëñ Abdoulaye yooyu mu génne ko ci biti mosu koo kafe sax mosu koo doxe mosu koo waxe njabootuk sëñ Abdoulaye gi mu téye leen ñoom ñëpp sëñ Abdou sëñ Modou Habib mu ci nekk mag tey wax na ne ñun ñu ngi soog a ñàkk waajur ndax bi sëñ laay jóge booba xale bu ndaw lan sëñ Cheikh moonu téye tey ji la ñuy soog a yëg ne ñàkk nan baay waaye ñun rek ñoo ñàkk waaye ñu def ci lu rafet li waxoon ne day sàmm ba noppi sàmm ak sàmm nit koo xamante ni nag baax nga sa waajur baax waaye sax njaboot nga sàmm leen njabootuk boppam kenn mës sa génn ci mbedd wala ngay dox taseeg doomi sëñ Cheikh joo xam ne doxul ci itte wala nga gis leen sax ñuy génn ba ci sëñ ab Abdou mi nga xam ne mooy taaw bi fu mu jëm xamal ci ndigalul sëriñ bi la jëm waaye ittey boppam rek kenn ku ci mas a gis mu génn amul wala mu dikk di wut fenn wala muy dem fenn wala di lijjanti dara amul ñoom ñëpp noonu lan meloon ku ci nekk fa nga nekk it moo la fa teg moo la fa teg moo fa dëgal ñoom ñëpp ku ci nekk bu jant soye wala bët set boo laajee sëñ Cheikh ne ko diw sàngam fu mu nekk sa njaboot mu mën laa ne ma nga béréb sàngam wala ma nga ci nàngam ci lu mu nekk mu ne la ma ngi ci nàngam loolu nag jafe na lool am na ñoo xamante ni jub nan sàmm nan waaye seen njaboot boo wëlbatikoo doo mën a joxoñ baaraam waaye sëñ Cheikh gàcc nga ngalaam njabootam gu góor njabootam gu jigéen ñi mu yore ñëpp ay taalibeem noonu lañ ko nawloo woon noonu la leen nawloo woon noonu lañ ko wekke woon tamit koo xamante ni dafa defoon benn baaraas ci digganteem ak taalibe yi baaraas ci digganteem ak taalibe yi mooy da leen woon ak njub ba fegu ci ñoom ba ñoom baaraasab képp koo xamante ni nekkoo ci njub ñemewoo jege sëñ Seex ñemewoo ko wax lu muy waxante lu lënt du ci dugg mukk lu mu lay wax lu leer lay doon loo koy waxi tamit lu ko leer lay doon du def lu ko leerul mukk kooku tey moo fi jóge ñu ñàkk exemple boo xamante nii mosoo ko dégg ci wàllu politique mosoo dégg ñu ne seex sëñ seex dañ ko recevoir tey pale mooy seeti pale wala tey pale waa pale ñoo koy recevoir ba ci dëkk bii mu daan dikk fii ci Sénégal ci Touba mosu leen dégg ñu ne sëñ seex gisee na ak président amul du ko soxlaal dara du fa ñëw kooku nag ku mel noonu nag ku ko am ak jamono bi ni mu tëddee ak ni mu mel ku am kilifa gu mel noonu boo ko ñàkkee faw nga jooy tey lu bare bare bari ci rangoñ tuuru nan fa lu ko waral yonent bi salaa salaam bi abbas nelawee seyna abbas nelawee wala seyna amsa seyna amsa bi mu nelawee nit ñi di jooy yonent bi ne leen bàyyi leen yuuxu yi yuuxu yi bàyyi leen ko rangoñ nag kenn la koy génne kenn mënu koo téye waaye yuuxu moom nit ki moo koy sabab lul boppam waaye rangoñ buy génn kenn mënu koo téye waaye tey rangoñ yu bari génn na fa ay rakkam ay doomam ay taalibe ay wëllëre ñëpp génne nan ndax ni mu meloon doon koo xamante ni jamono jamono ñàkk na koo xamante ni bari leetu ko te ñooñu mu bari leetuut néew na loolu nga mën a tëb tëb rek ne des nañ kii ci des kii ci des kii ci des waaye sëñ Seex moom kenn la woon ci nangoo liggéey di dunde aw ñaqam nangoo jaamu yàlla téye boppam lépp loo xamante ni dégg nga ñu koy wax boo dikkee jataayam ñi may wafaa tudd koo xamante ni ku di ko tudd ci wax déedéet loolu may ko woon kenn ci boppam ab jataayam sax sëñ Cheikh daa bokkoon koo xam day dox ci waxtu léppam ci waxtu lay doon bu la nee na fi ñëw bis sàngam bis boobu <clears throat> dina xam bis bi waaye dina xam waxtu bi tamit wan waxtu ngay agsi wan waxtu la lay recevoir moom bokkut woon ak sëriñ boo xam ne dama fay jaaroon rek di la siyaara déedéet sëñ moom boo fay dem téléphone mi tamit amoon na ci kii téléphone mooy wuyul boppam ak fi mu tolloon ci personalité waaye saa boo nee kar moo lay wuyu koo soxla nga wax sa soxla bokk naa ñi nga xam ne jëlal téléphone bi wala sëñ bi daa jàpp wala bu jàppee bu mën laa wuyut bu xoolee numéro bi bu noppee woola sëñ Seex daal nit la woon koo xamante nii àdduna ñàkk na ko njabootu sëñ Tuubaa ñàkk nañ koo xamante nii exemple la woon ñàkk nañ koo xamante nii ku amoon jom ku amoon fulla ku amoon ngor ku amoon diine ku sàmm woon ku wegu woon ku mënoon a muñ lépp bànneex àddina yi yépp mu woon ko ginnaaw waaye ku xamoon boppam xam na fi mu bokk waaye xamoon na xamoon na lim ci doon lim ci représenté te moo ne du mag de du mag lool de ay magam kilifaam nekk xam ngeen ne moom toogee xilaafa ak léegi lu nekk xewoon na fi lu nekk lu nekk xajoon na fi ak ngone jaar na fi ak waxambaane jaar fi ak mage jaar fi ak sëriñ jaar fi lépp tegu sa loxo ñépp di la déglu waaye dara dara dara mësta tax mu saalit dara mësta tax mu rang-rang du laaj dara du tàllal loxoom gis ngeen Daaru Rahman boo fa demee bu ko neexoon ci pexeem mag laaj dara Rahman bokk na ci dëkk yi dàq ci dëkk bi waaye du laaj dara ndox mu manqué mu toog di xaar yàlla courant bu manqué mu toog di xaar yàlla yoon wu manqué mu toog di xaar yàlla mësu leen a dégg sëñ si xanaa dara lu fa manqué day wax nan toog muñ ko ba yàlla indi ko lu fa manqué mu ne nan toog ba yàlla indi ko bu dee ndox day toog ba indil ko waaye du ko laaj kenn ruus naa bind kayitam di wax ne awma nangam te xam na ne yooyu ñuy ñàkk ak yooyu ñuy am yàlla moo koy joxe saa bu ko yàlla joxee mu jël ko waaye yaakaar naa ne koo xamante ni ñi mu dëkkaloon dañ koo wegoon ñi mu dëkkaloon mosu leen a dégg mukk ñu ne waa Daaru Raxmaan ñooy manifester kaay yi di xew ci sancaan yi di xew yëpp mosu leen a dégg mosu leen dégg ñu ne fa dañ faa rey nit wala dañ faa def nangam wala sàcc wala dañ amu fa ndax ña muy dëkkal tànn na leen bu baax a baax a baax sëñ Cheikh daal dem na tey jii tey yàlla defal na ko taw tawféex ndax wa weer wi waajuram wàcc liggéey muy weeru kas rajab sëñ Fallou gane ci àdduna sëñ Abdoulaye génn ci moom mii ci la génn àdduna lool jafe na lool ajjuma jin màggale la waajuram bi muy laata delsi ci la waa fekki waajuram ñu denc ko Daaru Rahmaan bu la ma saanoo sax dalay wax na la Seex Mbàkke Daaru Rahmaan ku ne xamoon na ne Daaru Raxmaan rek moo doon te noonu la sàmm woon yeyoo na fee mu nekk fële mu nekk yeyoo na fa jëmmalaat dëkk ba jàpp naa ne ba jonni tey ñu ne sëñ Seex a tëdd fële yaakaaruma ne nit dina fa def jubadi ndax nit ñi ko xamoon xam ko ba léegi sax gën mënunoo gëm dëgg dëgg dëgg ni lii am na ndax xam sëñ Seex ci sàmm ci silvisé ci jàpp njàmburam ci mën a toppatoo nit lépp luy lore mu déwul ko kii ba mu fi aay yi ñuy def ci togg yi booba ba mu koy ay ati at di ko aay waa këram duñ ko fa toggati booba xewut nii sax nii ko nit ñi léegi bàyyi ko ba mu koy bàyyi bu yàgg yàgg yàgg la ndax teel a xam jamono teel a xam àdduna sagal sëñ Tuubaa nag maamam sagal ko mos ngeen a dégg ñu ne sëñ seex wala ci sëñ seex wala gone yi Daaru Rahman wala nga ne ñu ne waa Daaru Rahman wala waa kër sëñ Abdoulaye ñooy def leel amul amul te lépp rek am kilifa gu mat kilifa nga nit mën nga am njaboot gu nekk sa waaye boo matee li nga doon lu baree bari du du du la dal ci sa njaboot waaye sëñ Cheikh dafa matoon kilifa matoon kilifa ñu ngi koy jaale ñëpp di ko jaale sëñ Modou Abib ak sëñ Modou Kiimaan sëñ Siidi ak sëñ Mbay sëñ Mbàkke bàyyiwun kenn ci njaboot gi ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale bis ni ko tey sëriñ Modou Habib mooy xalifab sëriñ Abdoulahi Mbacke moom ku nekk xam na ko ci lewet ci baax xëccoowul daray àdduna bëggul jenn daraja bëggul jenn jenn jenn daraja bu doon wax ne dara ji jenn la ci bëgg mooy dara ji moom la sëñ Modou Habib bëgg mooy dara ji toroxlu ci boroomam ak toroxlu ci moroomam kenn du ko amul kenn ku muy kawe kawe ci yow wala muy réerlu ci kaw wala mu jël boppam teg la ko wala mu teg ko njaboot koo xamante ni dara du ko denc ci wàllu poosam du ko denc ci àllam lu mu yëg ne nit soxla na ko yaa xam foo mën a bokk ak noo mën a bokk jox na la ko moom lu mu yëg ne yaa ko gën a bëgg wala yaa ko soxla te mu man ca dara loolu ci du ci moom yow lay tagg waaye du tagg ci moom moom boo amut fitu laaj kooku sax moom mu am fitu jox la ko kooku mooy sëñ Modou Habib moom it ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool sëñ Abdoulaye daal yal na ko yàlla fay njabootam gi waaye sëñ Seex mooy ki nga xam ne kenn mënta daaneele fenn lu dul kii faaw ñu histoire nettaliwaat ko histoire dinu ko jàngal histoire dina ko jàngal ñu bind ko ndax ñu yàgg ña mag ñu yàgg ña ak ñee yàgg nañ lool waaye sëñ Seex moom dañ ko mën a bind ñëpp jàng ko ñëpp jàngandoo muy gone yu ndaw yi soog a ñëw ndax kii ku ko nettali danañ ko teg koo xam ne kiimaan la wala ku kenn mënta roy te fekk na fii la dund bu yàggu rek la fi jóge fan yi rek la fi jóge nit ñëpp xamandoo ko kooku nan ko bind nan ko jàngale sëñ Seex a gën a yomb a jàngale mag ñi ndax moom dafa yàggul mi ngi nii waaye ñëpp xam ko mu def ngorom jamono di yàqu jamono wëlbatiku nu nekk jamono ñuul na fi jamono xees na jamono indi na fii rëg-rëg jamono téex na fi jamono def na fi lu nekk waaye sëñ Cheikh na dégg fi mu na dégg kooku bis ni ko tey ñu koy jaale umma islaam bépp di ko jaale mboolem yoonu murit di ko jaale lislaam bépp di ko jaale xalifaam bi xalem bi muy sëñ Cheikh Abdou mi nga xam ne mooy xalifaam te mu yar ko yar ko ba mu ne nër mu jàngal ko ba mu ne ar mu yee ko ba mu ne jar yal na leen yàlla lafal cet yàlla def leen liggéey bi sëriñ Cheikh bàyyi woon ngeen àggale ko sunu borom may leen fan yu gudd lool ak wér-gu-yaram ba lépp li sëñ seex yéene woon liggéeyal sëriñ Touba liggéeyal ko sëñ Abdou ngeen eggale ko ñu ngi ñaan yàlla bu leen cat du jiitu yàlla bu leen cat yàqal yàlla bu leen àdduna yàqal yàlla bu leen dara kar yàlla bu leen melow àdduna soppi te ji gëmuñu loolu sax ndax ni leen sëñ seex bàyyee ak ni mu leen defal ku nekk dem na dalal xelam waaye yéen yéen la sëñ seex gën a dalal xelam ndax da leen a tegoon foo xamante ni nawloo leen jur leen di seen waajur waaye def leen nawle loolu nag ku la ko def wan la ginnaaw la ca des mooy nga tegu ci yoon wa yal na leen yàlla àggale ci barkeb Sëñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox daje ci yeneen i jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullah dinatu ilmin